9 buts à 3 match jàpp nañ ko nag ci dimanche bi jàpp leen foofee ci place bu jàmbalaay nag pour njëkk a bëgg a seetaan à partir de 17h GMT lañ koy tàmbali bu ko defee balaa ñu mën a am ticket bu ñuy may ñu dem ci Égypte mën a conserver suñu titre. ek Mauritanie ñoom kat qualifié nañ nag ginnaaw bañ daanee Nigéria guleen nag seen taarix kon ñoom aussi ñu def ay jéego ndax match xaritoo biñ doxal daan lañ leen benn jaar suñ kaw. Kanigou Slalom dinañu suñ gaynde biir mooy Yves Bouryz nag moom moo ci gën a ràññeeku de ak performance am bu mucc ayib mu terminé cinquième ci séréem loolee dina ko may nag dina doxal lii nga mooy demi-finale ñu jàpp ko ci altine bi à partir de 13h30 GMT. ci wàllum tennis de table kii nga xam ne moom Ibrahima Diaw ñu félicité ko bu baax ndax moom jàll na ci lii nga xam ne mooy deuxième tour bi. bu fekkee ñoom jàll nañ malheureusement pour kii nga xam mooy Oumy Diop voilà nag la jeune nageuse jàpp leen moom lañ ko éliminé nag. ci premier tour bi nag na moom moo yi quatrième ci série et que ñu jeexale ak suñ gaynde bi nga xam ne moom mooy Ndeye Binta Diong moom aussi ci premier tour bi lañ ko éliminé ginnaaw gi lu mel entraîneur am mu fësal ne ne voilà ginnaaw gi bañ ko éliminé nag kon bii mooy nekk dernière compétition vraiment jeex na nag carrière am voilà fii la ko yemale kon li des ba des mooy que voilà ci enseignement mooy que kat jàngale ci loolee di wàllum escrime ci ndaw lii moom lay jublu. ek ci wàllum rugby à 7 France moom mooy décroché li nga ne moom mooy médaille door bi jàppaleen mu daan Fidji ci wàllum football Argentine mooy mujjee daan Irak 3 buts à 1 dina ko may mu relancé wu Égypte mujjee daan Ouzbékistan benn ci dara jàppaleen kon quasiment qualifié ndax am nañ 4 points jàppaleen Maroc dafa mujjee la ji nag devant devant pays biir mooy Ukraine ñaari bal ci benn voilà nag ci liir mooy temps additionnel bi bu fekkee France mooy mujjee jaar ci kaw Guinée benn ci dara même score que le Japon daan Mali benn bal ci dara. Argentine Maroc seen jowante boobu amoon na coo xam ngeen ne su batee duggoon ca terrain ba avayé ko ginnaaw gi ñu wóolu leen kat VAR wala ñu annulé bi Argentine jox ndam waa Maroc Argentine yóbbu leen FIFA waaye nag FIFA da leen mujjee budee nag résultat kat seen appel boobee. kon Maroc kan mooy mujj conservé ma boobee kon ci poule boobee Maroc am na 3 points waaye poule boobee mën naa ne sereen ndax Maroc li ko war mooy ndam pour mën na qualifier ci quart de finale yi. beneen bi nga xam ne voilà ñu bëri waxtaanee nañ ko jàpp leen bu baax nag ci wàllu foot féminin Canada bi nga xam ne dañoo fësal ne voilà di ruum naan ñoom kat dañoo espionné di sàcc kat voilà entraînement bi am na Nouvelle-Zélande doon nañ ko amal ci benn drone. kon ñi ngi fësal voilà ñoom kat wàññi nañ ci ñoom 6 points ci li ngeen mooy tournoi olympique bi et que amande nañ leen lu mat 200 000 francs suisse et que nag un an de un ci seen sélectionneur boobee ak kii nga xam ne mooy adjointam ek ñu desandi ci joŋante yu yooyee li ngeen mooy tableau des médailles fësal nañ ko Australie moo nekk ci kaw avec trois médailles d'or Chine deux médailles d'or unis benn de même France ak Corée Espagne moo koy fermé avec benn médaille de bronze ek jàpp leen Laurent bi nga moom mooy coach su boole Etihad club espagnol bi mooy moom lañ doon jàmmarloo ci benn match xaritoo waaye nag ñoom dañ leen mujj daan de kookee di Lucas Ocampos moo lakk caaxi ek Marguerite kookee di Benzema Diaby Aouar mais taxul benn yoon dañoo lajj. désir bi ak i ndawam ñoom kat ñi ngi wéyale yoon de jàpp leen kat amaan nañ seen ñaareelu ndam bu ñoom ñooy daan. Pawo voilà de Pathé Mboup 3 bi à comme ni nga ko fësalee kooku di Monson Greenwood dugal na nag biom bu njëkk comme ni nga ko fësalee seen joueur bi nga xam ne mooy Ismaïla Koné biir mooy doomu canadien boobee du yàgg dara nag voilà dina amal ay tàggatoom nag ak waa Marseille bu ñu soxandikoo ci kii. Olympique de Marseille boobee ñu ngi piisay bët de la biir national biir mooy mooy Boukary Soumaré biir moom mooy zone de Leicester bu ñu ci la minute OM. zone bi dañ ko tegan pression ginnaaw ba mu tëddee ba lank ci suuf ne balaa ne du indil benn ndimbal ci borom ñaari tur yooyee seen journée bi nga xam ne doon nañ ko amal mooy que seen bëccëg bu leen fàttaliku. muy Mohamed Kamara kon club boobee nag ils sont ñu jaay ko nag ci noonu am na benn club Qatar bi actuellement nag ñu ngi ciy waxtaan yi kon lii lii daloon kii nga xam ne mooy Gana Gueye buñ mooy moo koy dal ndax ministre des sports bi si dem na ba dugg ci loxoom ko defee ñu teg ko ay daanam Benfica mi ngi négocier ko xuus na ci bu baax ak waa Paris bu ko defee kii yan mooy Renato Sanches doomu portugais boobee mën a delluwaat foofee doxal ek nag moom bu fa delloo comme ni ma ko fasale woon ci kayitu xibaar yi ko dëxëñ ci diil bi moom a seqal ko defee ñu mën leen jaay kookee di João Neves bi nga xam ne transfert bi nag mën na jege lu mat cent millions d'euros waaye nag mën mooy Renato Sanches mu mën ko facilité ek nag bés bu fu ñëwee dina xaatim contrat bu juróomi at. défenseur irlandais bi yam daana doxal ca Lyon mu yoo ci Jack O'Brien jàppaleen bu baax nag club lyonnais boobee jaay na ko jaay na ko de Everton de Iliman Ndiaye ak kooke di Gana Gueye 20 millions de dollars lañ déggoo ci ay kàddu ek nag dinañ ci ama 10 pour cent bés bi ñu koy jaayaat ek kooke di Saint-Étienne nag voilà moom moo safoo jour bu nu ak Douglas Costa moom kat bi ngeen mooy doo brésilien boobee buñ mayul bu mooy kat dina amalaat beneen aventure cette fois ci en Tunisie ndax club yooyee xam nga ne club maghrébin dañoo am ay koppar mën a dalal jour bu leen nekk ci noonu ailier brésilien boobee nag wala dàqul benn yoon nag amal expérience ci championnat tunisien boobee. Michael Arteta mu ne objectif bi Arsenal moom la mbébét ci saison bii mooy ñu am 114 points rien que bu ko defee si mën leen embêté ndax xam ngeen ne City voilà mën ngay doxal te di jiite waaye ñoom voilà bés bu njeewoo dañ la fay bàyyi comme saison bi passé Arsenal jàpp leen dafa dàq nag offre bi nga xam ne voilà nag yenn ci club Allemagne def nañ ko ak espagnol yi saoudien yi seen portugais biir moom mooy Fabio Vieira waaye jaar yoo sport mu nekkat jàpp leen kii nga xam ne mooy Rafinha club Gunners boobee aussi nag ba pare nañ podé benn offre mucc ayib ci kii nga mooy Rafinha Erik ten Hag mu ne nag ki ngeen mooy Marcus Rashford am na wóolute ci moom nag à 100 pour cent nag mën na def lim defoon hier de cela deux ans ak jaloorem yooyu ak bi kon performance bu nu mel la kay séntu mu defaat ko waaye nag loolee faw ñu dimbali ko ci ek moom noppi na dimbali doomu angale boobee Hannibal mesure bi bien na doxal ca Manchester United moom nag ñu mooy dinañ ko abale ca Rangers Glasgow. Henry Maguire moom que lim fësal mooy que un an de de moo ko dese bu fekkee Manchester United bëgg nañ ko xëy waaye bu fekkee nag voilà nag konteetuñ ci moom moom dina xooli feneen. ñu àddu ci kii nga xam ne mooy agent bu ñaari joueurs yi di Delix ak Mazraoui liñ fësal mooy que Manchester United amal nañu waxtaan di ak kooku di Rafaela Pimenta bu ko defee kat. transfert boobee mën a yomb waaye kenn mooy Mazraoui nag moom mi ngi jàngat ka transfert bu nu bu fekkee nag dina am garantie ne bu fa demee foofu dina voilà dàqul benn yoon doxal fa waaye nag Bayern kat pour rappel moo laxas jaan ci doomu néerlandais bi nga xam ne mooy De Ligt ji Guardiola mu ne kat musul wax ni dafay quitté club bi ngeen mooy Manchester City jàpp leen nee na dina jël dina jël temps nag moo xalaat ci ëllëgam jàpp leen mu ne nag bu fekkee wàllam prolongation de contral lu mën a nekk la ndax moom bëgg na desandi ci club boobee mooy wax de mu ne nag waaye nag bëggu faa def lu mat. juróom-ñetti at mooy ko huit ans waaye li leer ba leer mooy ko Varane nag am na mbébét wéyal ak ñoom. Ryan Sessegnon doomu angale boobee kon quitté na librement club boobee te Tottenham utile ci Fulham xaatim fa contrat buy dem ba 2027. doomu paraguayen bi ngeen mooy Miguel Armiró bi nga xam ne jàpp leen ma ngay doxo ca Newcastle actuellement nag mi ngi. mi ngi waxtaan ak club bu mag Paris mag Paris boobee bu ko defee mën faa quitté nag région de club benn club saoudien bi mu ne voilà nag noppee nañ nga fay koppar yu takku Chelsea nag fësal nañ dakkal nañ contrat bi doxoon seen diggante kenn mooy Malang Sarr kon kat bi national boobee dafay utile ci Lens en tant que agent libre. ek jàpp Chelsea mi ngi ci jafe-jafe di ndax Celtic bi nga ne moom moo jaaroon ci kaw Man City ñeenti bal ci ñett cette fois ci 4 buts à bi nga xam ne balaa ndorteelam. muccul ayib dara waaye nag kenn comprendre kenn comprendre ni dañu ber kii nga xam mooy solo ba ñu mën a compter un certain Badiashile chute bi xam ne voilà kenn xamul lu muy doxal ndax am na bi bi xam ne moom moo ko maye. vraiment nag Chelsea nag seen gestion boobee nag war nañ ko xoolaat ndax supporter kat ñu koy duut baaraam waaye li leer ba leer ñoom kat dañoo lajj ek dañoo doxantu seen kaw dëgg ñu ngi xalaat nag seen kii boobee nan lañ ko war defaraat defaraatee ci noonee dalal nañ doomu argentin bien moom mooy Aaron Milner noonu kon montant transfert ba xëy mën nañ ko ci 20 millions de dollars. ak nag portier danuwaa benn moom mooy Philippe Jorgensen ñoom kat amoon nañ déggoo di ak club boobe di Villarreal lu mat 24,5 millions de dollars lañ fay club bu sous-marin zone boobee lépp mën a yemb nag. kon kookee du yàgg dara dina fa tolli waaye bés bu fa ñëwee nag portier serbe bi nga xam ne moom mooy moom mooy Petrovic bi mu naam benn ndaw la bi nga xam ne voilà ci ci saison yi nga xam ne génne na ci voilà wone na benn portier bu xarañ la waaye moom dañ koy mujj bàyyi mu dem Zeras breast wet moom amul benn mbébét naan dafay wéyle ak waa ak waa Everton xanaa kay ci kaw ñu faykakat koppar yu takk lool buñ soxandikoo ci mel ek jàpp leen bu baax Newcastle intéressé nañ ci kenn mooy Malick Thiaw défenseur central bi nga am na ñaar fukki at ak ñaar ma nga doxal ci AC de Milan classement final ci ligue moom mooy Ballon d'Or buñ soxandikoo ci one football jàpp leen bu baax jàpp nañ Vinicius tak moo koy doon premier deuxième Jude Bellingham troisième Rodri quatrième Kylian Mbappé ak cinquième Phil Foden kon ci top 10 boobee voilà nemmeeku ñu ci doomu africain Real de Madrid ki liñ fësal mooy ko dafa leb lu mat 130 millions d'euros benn banque nag bi nga xam ne voilà loola dina ko may mu fay yenn ci ay salaire ak prime bi yenn moom la xaatimal kookee di Kylian Mbappé mu mën bu ko defee voilà nag liñ lëkkaloo ñu mën ko matale et que nag loolee lañ fësal et que doon nañ wax ne kat Real Madrid voilà dinañ dinañ def benn chiffre d'affaires bu exceptionnel dans seen stade boobee xam nga nañ koy loué ci wàllu boxe ak ay concert lu mat un milliard kon xaalis boobee fan la dugg. kooke di Inter présenté nañ ko voilà nag foofee ca Bernabeu ak njabootam ak corom boobee jàpp leen bu baax. devant quinze Ligue des champions yi nga xam ne voilà nag Real gàddu na ko loolee ab sas la nag sas bu rëy la pour moom wane nag ci club bu màgg nga ñëw moom xam na lu ni mel ndax mu ne ba mu nekkee gonekat loolu la yàgg mbébét. ek moom sax doonatul ay rongoñ ak waaye jurum bu góor ek ko kii di João Félix nag toppatul Barça ci seen ay réseau ci mën Instagram. dafa la diggante bi dafay mën dafay dafay yem foofee bu ñu soxandikoo ci Fabrizio Romano actuellement mi ngi amal ay tàggatu nag voilà dafa beru nag eh, ak foofee ci Atlético Madrid waaye li leer bale club boobee di Aston Villa nag kookee di Unai Emery voilà nak safoo na ko lool kon buñ mayul kat dina utali ci Angleterre wéyale carrière am léegi lépp yem na doomu doomu espagnol boobee di Brian Gil jàppale nag clubam boobee di Tottenham abale na ko ca Girona et que nag ñi ngi fësal benn clause lañ ci dëxëñ de mooy clause libératoire bu mat 15 millions d'euros Séville mi ngi ci yoon recruté ki ngeen moom mooy Nigérian bi ngeen moom mooy Ené Yacho jàpp leen gratuitement ginnaaw ba mu quitté ci Leicester Robin Norman défenseur espagnol boobee dafay quitté ci Real Sociedad utali ci Atlético Madrid et que ñi ngi fësal ci kër xibaar yi nag moom moom maykat du yàgg dara dina amal visite médicale am Bild mu nekkat du Dortmund voilà nag nee na duñ nangu benn yoon li nga xam ne yeggul cinquante millions d'euros ci seen doom bi nga xam ne moom mooy Karim Adeyemi bi Azam nag mi ngi liggéey bu ko defee mu mën fa bawoo Artem Diouf Big moo xibaar waa Atlético Madrid bëggu faa doxal benn yoon ay suma la préféré kon tànne fam boobee nag jàpp leen Antoine bu soxla ko ci Fabrizio Romano bés bu fa demee dina xaatim contrat buy dem ba juin 2029 Juventus noppee nañ fay lu mat 45 millions d'euros waa Atalanta bu ko defee ñu jaay leen seen excellent milieu terrain bi ngeen mooy Teuton-Cominges bu ñu soxandikoo ci Gazzetta dello Sport Ansu Fati dina desandi ca Barça ndax kii nga nag lii nga xam ne mooy effectif bu Barça nag pour seen tournée pré-saison États-Unis jàpp leen bu baax fësal nañ ko nag ñu mën cee nemmeeku ci Manchester City Iñaki Peña wala boog Koundé Mikayil Ngor Faye bi dafa amoon gaañu gaañu waaye bara une petite jeune dong la kon moom kat lépp dina jàpp kon liñ mën dong de mooy ñaan mu def pré bu exceptionnel bu ko defee kat mu doon benn titulaire indiscutable ek jàpp leen kii nga mooy Ismaïla Sarr. dinañ ko xaar nag foofee ca Londres voilà ki ay bés yi ñu dugg nii bu ko defee voilà nag mu amal loolee di visite médicale am bu lépp yembee de dafay xaadim contrat buy dem. voilà wala ba contrat bu juróom at loolee lañ fësal ci këru xibaar yi Marseille nag am na ci bénéfice ndax jënde woon nag lu mu mat 13 millions d'euros ba muy bawoo ca Watford ek nag ma fay bawaat ca Marseille un an ginnaaw ma fa doxalee jaay nañ ko lu mat 15 millions d'euros hors ci boolee mbaqus yi mën na jege lu mat 18 à 20 millions d'euros bu ñu sukkandikoo ci la Provence. waaye ñu ngi ñaanal Ismaïla sar bu baax a baax bu ko defee voilà mu wane talent ca prime ak vraiment c'est le moment nag ndax benn zone bi vraiment am na retard lool voilà fi ñu doon séntu jour yu mag yëpp voilà mënoon na fa yegg. waaye comme ni nga ko mooy que voilà nag ku nekk sa yoon nga tracé peut-être moom lii destin am lool waaye comme que delluwaat ci championnat bi ñu koy bàyyi xel rawatina ca Crystal Palace kon ñu ñaanal ko nag bu bëree et que comme ni nga mooy que la balle est dans son camp. c'est à lui de saisir cette chance et que bess bu fa doxalee wane boppam voilà sans doute que le du côté ben yon ndax mën na ko jébbal ci club yu gëna mag yi am nañ am nañ ci Angleterre wala boog yenen ci championnat cant ak ngërëm ñenn lañ dinañ jaajëfal ci yenen xibaar sur le sport 221.